communication bi ñu waxoon dama ciy brosse tuuti parce que le projet la a parlé ici de projet projet Ousmane Sonko c'est-à-dire que dès le début fu ma ne dafa am erreur ci communication ils attaquent beaucoup de sociétés yoo xamante ne des multinationaux te xamul enjeu bi foofu laa ne ni communication bi dafa des trop ci Ousmane Sonko parce que nit yow dooragoo déjà tu commences à attaquer les sociétés multinationales le le le gars de le cas de Guy Marius Sagna la qui parle de France dégage dafa yi c'est des gens qui connaissent pas réew nu muy doxee xamuñu sa société nu muy doxee parce que doo ñëw yow xamoo dara lu muy doxee ti di que France dégage xam na combien de sociétés françaises ou bien d'autres sociétés combien de taxes est-ce que mën nga énumérer les sociétés sénégalaises yu fay fi ay taxes plus que ces sociétés kii la le l'emploi qu'il contribue ici combien de Sénégalais qui la là-dessus ñu ñëw noonu rek ay France dégage vraiment moo tax ma ne leen ils s'aventurent de des yoo xamante ne di ñëw di wax ci réseaux sociaux yoo xamante ne vraiment il faut que ñu xoolaat seen bopp. merci beaucoup foofu la bëggoon attirer seen attention ñu xam ne eh, réew lu muy doxee c'est des partenariats. jërëjëf voilà merci beaucoup monsieur Thiam lan ngay.